Euh, pour euh, féliciter l'ensemble du peuple sénégalais mais aussi féliciter le président de la République euh, moi je prends la responsabilité de le féliciter ndax nit mun nga xam luy sa cër nga bañ koo def te décision bi mu jël tey dina indi jàmm ju bari ci réew mi ñuy ñaan nag li des ci processus bi ñu teg ko ci yoon dans le respect des principes démocratiques et de et du et de l'intérêt suprême du peuple sénégalais Sénégal nag tey mu jëlaat li nga xam ne son statut de vitrine démocratique en Afrique ndax àddina bi yëpp tiitaloon nañu li ñu gënoon tiit mooy euh, Sénégal euh, nërmeelu gannaaw ba réew yu bari ñu yu ñu wër euh, nërmeeloo président de la République nag tey il a la très bonne décision mais wax na ko xëy na dans son fort intérieur il n'a jamais eu l'intention de tenter cette troisième candidature bu ñu ko ko doon jiiñ de toute façon il ne l'a jamais dit nee na il est guidé euh, par un code d'honneur et donc il respecte sa parole euh, ñu koy ñaanal li ci des yàlla na yomb ci moom euh, les portes de l'Afrique s'ouvrent pour lui les portes du monde s'ouvrent pour lui il va démarrer une grande aventure africaine et mondiale et Macky Sall a aujourd'hui la légitimité en tout cas bu processus bi continuer de parler au nom de l'Afrique, de faire entendre la voix de l'Afrique dans toutes les tribunes internationales. Merci Yann